billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokki sénégal mbokki téléspectateur yu Tawhid TV ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziyaara di leen lokkeel di baalu ak bu baax a baax di jiital ci nuyoo bi kilifa diine yi kilifa yi nekk ci réew mi yëpp aada politique ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara bu baax a baax tey ñu ñëw ak yéen ci premier numéro ci seen émission bi di mbaarum daara ji mbaarum daara ji comme niñ ko waxee di émission boo xam ni daara alxuraan yi ñoom ñoo ko moom muy émission boo xam ne ñu ngi ko seddee lépp loo xam ne dafa aju ci daara alxuraan daara yi nag dañ leen fekk si ci seen daara yi maanaam ca mbaaru xalqa ba euh, xool njàng mi xool njàngin mi topp leen ci euh, mokkal gaag taxaji ba la ñu commencé sax ba ca mokkal ga ba ca beqi ga maanaam ca mbind ma waaye lépp loo xam ne lu ajoo wala lu yelloo ci wàllu daara la itam incha allah dinañ ci faral di waxtaan léeg-léeg dana ñëw fii ci ay plateau taalibe yi nag dañu nekk ci pàcc bu am solo muy jàng alquran ak di ko jàngale jàng alquran ak di ko jàngale di loo xam ne lu mënul ñàkk ci ab société la lu mënul ñàkk ci ak dund la lu mënul ñàkk ci pénc mi la sabab yi lenn la bu njëkk mooy jàng alquran moom ndigalu sunu borom la ci bépp jullit boo xam ne yaa ngi wax ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah jàng alquran mën ko day waajib maam day warteef ci sa dund ndax nit mënul julli julli goo xam ne alquran nekku ca te doomu aadama mënul dund te du julli kon loolu di benn kon mu nekk ndigalu suñu borom lépp lu nit di jàng njëlbéenu njàngin ma li mu war a doon mooy alquranul karim ndax iqra bismi rabbika di xalaq mooy li suñu borom njëkk wax loolu di benn ñaareel bi jàngam alquran mënul ñàkk ci ak dund maanaam société bi nga nekk moom moo soxla njàngam alquran ndax nit ku nekk danga soxla julli comme ni ñu ko waxee ku nekk itam da nga soxla di wax ak sa borom di dégg lim la diggal di xam lim la tere te loolu suñu borom mu ngi ko jaarale ci alxuraanul karim loolu di ay mbir yoo xam ne mënatuñoo ñàkk di waxtaan ci mbiru daara yi ndax société bi ci jëm boppam nit ñi ñoo ko soxla nit ku nekk soxla nga jàng alxuraan xam ko bu fekkee rëcc na la bëgg nga ko dabaatal ci sa doom moo tax nit ñaa ngi fay di jàngalu di joxe seeni doom ñu leen di jàngal lu nekk ñu ngi ci ba tax na kon ñu jël ci émission bu am solo tey nag ñu ci jël ñu am solo moo nekk ñu ci ñàkk waxtaanal muy waa AIS AIS di mbooloo moo xam ne ku nekk xam ne leen xëy na ki ñu ci am muy imaam Babacar Cissé dana ci ñëw bu jaamal di nit koo xam ne moo nekk coordinateur bu AIS incha allah dana ñëw ci dana njëkkee ci gën a fésal taxawaayu AIS ci biir diine ji waaye ci biir réew mi incha allah ak seen taxawaay ci biir daara yi yëpp dana ci ñëw incha allah imaam ñu ngi lay nuyu di la ziar ñu bàyyi la nga nuyoo. Euh, mbokk mi ñu ngi lay nuyu topp mhm. di nuyu borom kër gi jaag euh, di nuyu personnel bi nga xam ne ñoom ñoo fiy liggéeyee ñoom ñëpp di leen wax déwénati leen baal leen ñaax ñuy baalu àq mbokk mhm. jullit yépp mhm. waaye itam di rafetlu teewaay bi ci kër gi waaye itam mu nekk teewaay bu ñu neex lool ndax euh, doomu daara boo ko woowee ci ëttub alxuraan woo nga fi nga ko war a woo woo nga ko fi mu jàpp ne fa lañ ko war a woo kon invitation bi AIS euh, kontaan na ci lool ci ndigalu sëñ maam Cheikh Mbacke mi nga xam ne moom la yàlla def mu ne ci bopp kuréel gi mu nekk kuréel goo xam ne euh, dafa am lu ko tax a juddu dañuy wax ne association boo gis ci àdduna rek bu juddoo am na lu ko animé ba tax mu juddu comme niñ koy waxee ci idéologie mm. maanaam tey idéologie dafay juddu mm. dafa am lu tax mu juddu mm. ba day mujj nekk réalité ci nit ñi ba ka ko xalaatoon sax mën naa dem ba génn àdduna waaye idéologie moom du dee mukk ah, kon AIS loolu benn xalaat la boo xam ne dañu gis ne réew mi ñu dëkkee muy Sénégal mag ñi dañoo tànnoon école tasawuf ah, def ko mu nekk seen mën a hëj boo xam ne si lañ doon jàngalee waaye si lañ doon yare te tey boo xoolee école tasawuf boobu tey àdduna ñëw naa gën a wanewaat ne école la boo xam ne école bu baax la école boo xam ne euh, dëgg-dëgg amul violence école la boo xam ne euh, li taxoon mag ñu tànn ko euh, mu nekkoon seen yoon loolu tey àdduna ware na ne loolu lu am solo la waaye jamono nag buy dox day dem ba yàgg dafay am lu ñuy tuddee rupture waaw euh, rupture nag buy am dafa war am ñoo xam ne dañu war a jóg solaat seen dàll yi mm-hmm. di éveiller nit ñi seen conscience mm-hmm. pour mën leen a tegaat ci yoon wi mm-hmm. loolu mooy lan mooy mag ñi fi nekkoon tànnoon yoon yoo xam ne si lañ doon jàngale waaye si leen doon yaree waaye tànnoon sax yar door a indi xam-xam parce que wax nañ ne xam-xam euh, yar moo koy taaral euh, moo tax ñoom toujours dañu doon boole ñaar yooyu école tasawuf boobu nag bu ñu demee ba gis benn jëmm jamono mu am ay menaces. Mm-hmm. ay menaces yoo xam ne day jóge fu ne. Mm-hmm. di ñëw comme ni ñu koy xamee rek ci xeexu idéologie. Mm-hmm. waaw ndax xeexu idéologie moom ba àdduna sosoo ba léegi. mook loolu ñoo mos di ànd. loolu ñuy tuddee maanaam mën nañ ko sax tuddee choc de civilisation. maanaam tey euh, li bees. Euh, bu ñëwee toujours day jàpp li mu fi fekk. xëy na euh, gis-gis yam cay am. des fois du dëppoo moom na mu ko bëggee wala na koy xalaatee. Mm. loolu nag mun naa dem ba kere li ñuy tuddee fiiraange. Mm. wala mun naa dem ba kere li ñuy tuddee ñàkk a ci ay mm. gis-gis. Mm-hmm. wala ñàkk a ci ay xalaat. Mm-hmm. waaye nag defe naa ne loolu ku xam lislaam mm-hmm. xam ne lislaam ci contradiction lu judd. waaw ci contradiction lu judd moo tax en général dañuy wax ne ñi miinu lislaam yiñ gis muy am ci biir lislaam xam ne sax des fois sax ñu jàpp ne lislaam xëy na loolu bokk na ci li koy. Euh, li koy li ko mën a indil ay gàllankoor. Mhm. mais fekk na dañu xamul rek ne lislaam mhm. euh, ci contexte yooyu la juddu. léegi nag loolu bi nga xamee ne yàlla def na mag ñi tànn seen école yooyu. Mhm. doon ci jàngale doon ci yare. Euh, dem ba ñu ci bëri ci ñoom làqu seen i njaboot ñëw ñun itam ñu bokk ci njaboot yooyu. ñu gis ne tey loolu mag ñi yoroon. war nañ ko gën a jël. sauvegarder ko. fexe ba nga xam ne ñoom yéene yañ ci amoon. Euh, ñu fexe ba yéene yooyu mm. ñu gën ci taxaw pour jàngalaat ko nit ñi mm. waaye liñ gis ne mu ngi ñëw ne mën naa indi ay jafe-jafe ci li fi mag ñi bàyyoon mm. ñu fexe itam ñàkk ko ba jafe-jafe yooyu du mën a yegsi donte la yegsi na sax waaye ñu fexe ba du mën a dugg ci biir ci contexte boobu la ay AIS juddu euh, yàlla def ñu am xalaat ñu amoon xalaat bi euh, ku mel ni sëñ maam Cheikh Mbacke jiite ko ñu def benn tournée ci këru diine yëpp jamono boobu fekk sëñ Sidi Maxtaar ci waxam ju rafet jooju mu waxoon mm. na bëggatuma fii dégg murit ak tijaan mm. wala murit ak tijaan ak xaadir mm. ndax ñun ñëpp ñoo bokk benn école bu ñu nàmpee muy école tasawuf maanaam nga gis na depuis booba léegi yàlla mu ngi dimbale ah, yi ñu war a ànd yëpp ñu ngi ciy ànd waaw ah, te dañuy wax ne àdduna ñaar rek moo moo mën a am nit ki dangay xool li nga mën a ànd ak moom nga ànd ci ak moom li nga mënta ànd ak moom nga maslaa ci ak moom te mag ñi noonu la ñu doon dëkkee noonu la ñu dëkkee woon réew mi te ñu mën nañ ci joxe exemple yu bari yoo xam ne boo xoolee Senghor bi fi nekkoon nekk doon mm. jullit mm. te ñim dëkkaloon mm. nekkoon majorité doon ay jullit waaye gis nañ ne mën nañoo ànd ak moom ci côté boo xam ne du yàq ci seen diine dara loolu nag moom la mm-hmm. mag ñi nekkoon doon ci dund di ci yar ñun itam en tant que seen njaboot mm-hmm. ci yoon boobu la ñu sóobu mm-hmm. loolu mooy daal ci gàttal ci résumé moo tax juddu AIS waaw bu mu juddoo ba léegi nag ci activités yi ñu fi jotaguma def activité yu bari la créé nañ organiser nañ ci benn colloque international euh, sur la euh, la vie et l'œuvre de Soufi maanaam jullit ñi nga xam ne dañoo tànn école Soufi mu doon seen école ñu ne nan lañ koy mën a jël ñu valoriser waat ko ba génération yi war a ñëw bu ñëwee itam gis ne école boobu école bu am solo la école la boo xam ne dëgg-dëgg. Mm. ña fa jógee euh, wanewuñ dara ci àdduna lu ñu mm. lu tax ñu jàpp ne l'islam bi l'islam bu radical la wala mm. l'islam bu intégriste la voilà. dëgg jërëjëf Imaam jërëjëf ñu ngi lay bëggee bu baax ci kàddu yi. jàng nañ gën a xam exactement AIS lan la ak seen lan mooy objectif yi lan moo ko tax a jóg lu tax mu juddu ni nga waxee sànq. Euh, présenter mbooloo. ba nit ñi xam exactement poids mbooloo mi dana tax ñu xam invité bi ak li tax ñu jox leen tànn thème bi tànn leen ci dana am solo daal. Mm-hmm. yaa ngi tudd sànq mag mag ñi seen mën xëj da caa bokkoon école tasawuf ñu nekkoon ci. waaye ñoom ñëpp kenn ku nekk sa sa sa sa daara mhm. fi nga njëlbeene si taxaw sa école tasawuf dafa mel na ci daara alxuraan nga mhm. tàmbalee ndax mhm. jàpp naa ne soo tuddee Sénégal tey amul benn mag booy tudd tey te këram amul woon daara alxuraan jàng alxuraan amu fa woon te ñu doon ko fa jàngee loolu day benn mën nga ñu jëlal nag ca kaw ca taarix bu fekkee mën na gën a sore ci madaay su xuraan yi fii ci Sénégal ci Sénégal ni mu fi duggee ci taarix bi mën nañ koo gën a xam jërëjëf oustaz xam nga daara moom Euh, booy wax ni mu duggee ci Sénégal. Hmm. da naan kere bi lislaam duggee ci Sénégal rek. Hmm. kere la daara dugg ci Sénégal. Hmm. parce que daara ak lislaam ñoo ànd. ndax boo xoolee aaya bi njëkk wàcc ci alxuraan. iqra la te iqra boobu euh, dañ lim li nga ciy déggee yow jullit bi. mooy ne nit ki mënta doon julit te xamul diinam waaw parce que diine. dafa am ay suróot. suróot yooyu nag lii tax nit ki mën ko xam. ba mën ko jëfandikoo mm-hmm. nga xam ne yow lii mooy islaam mm-hmm. lii mooy imaan mm-hmm. lii mooy ihsaan lii mooy sharia loolu xam-xam la boo xam ne ci diina la nekk waaye lan mooy alxuraan ak lan mooy sunna loolu itam nit ki mën a xam loolu mën ko ràññale fokk jàng am moo tax kere bi lislaam juddoo jaar ci réew yim jaar ba yegg ci Sénégal ba mag ñi ko taawu dugal ko ci réew mi mm-hmm. kere bi lislaam boobu duggee ci réew mi mm-hmm. kere la daara dugg ci réew mi kon dañuy wax ne daara mm-hmm. am na yenn gëstukat yuy wax sax ne daara bi mu duggee ci réew mi léegi mën na ay siècle yu baree baree bari waaye comme date nag ci taarix ñaareel sax duñ ci bëgg a avancer parce que dafay am woroo ah, te moo tax boroom xam-xam yi dañuy wax ne ak taarix yax kii maa jaraa fi maa madaa minal xuróoni waaw ah, donc mën nañoo wax dat waaye benn boroom xam-xam dafay wax ne Euh, yonent bi de lenn rek la ñu la ñu la ñu wuute wut ci moom. Mm. mooy ne Mouhamed la tudd. Mm. Abdallah moo ko jur. Amina mooy mooy mooy yaayam. waaye leneen lu dul lu rek. Mm. taarix moom indi na ci wuute. waaye daal ci gàttal dañ lay wax ne ker bi lislaam duggee Sénégal. Mm-hmm. keroog la daara ak njàngum alxuraan dugg ci réew mi. li wóor moom kon suñu déggee. njàngum daara moom moo fi jiitu école tubaab bi ci Sénégal. waaw école tubaab bi am nga fi téeméeri at. am nga fi alxuraan am na fi am na fi junne at. ak lu tegal ah, kon nga gis ne Sénégal ay gëstukat wane nañ ne maanaam réew mi euh, réew loon moo xam ne man demoon na ba nit ñi sax li ñu doon bindante ci wàllu administration sax arabe la maanaam avant colonialiste yi fi ñëw maanaam même bi colonialiste yi ñëwee sax ñoom fexewoon nañ ba ci seen ci seen système administratif intégré woon nañ loolu boo xoolee mag ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekkoon ak tubaab yi daan nañ bindante ay lettres arabes maanaam moom lay wax sax sama benn xarit ma ne ko maal asaf. boo xoolee ñun suñu ñi tubaab bi yar. Mm. jàngal leen bàyyi leen fi ñu doon ay nit ñu ñuul. Mm. li tubaab bi loon jullit ñi nga xam ne. Mm. xëy na ñoo ñoom bokk ñoon der sax. ñoom ñi nga xam ne ñun ak ñoom ñoo bokk ay der. ah doon ay jullit bokk jàkk yu ñu jullee. di bokk lépp. waaye maal asaf. la tubaab bi loon mm. mag ña mm. ñoom tey nangu luñ ko ñi nga xam ne ñoo fi nekk doon ay ay nitu diine mm. parce que jamono boobu mag ñi bu ñu bindaan ay lettre arabe administra administration coloniale daf laan tontu ci lettre arabe parce que boobu ñoom damoon nañ ci seen système administratif loo xam ne maanaam lettre bu ñëw ak fu mu mën a jógee am nañ koo xam ne waajal nañ ko préparé nañ ko ba loolu dina dina mën a am ba ci tribunaux yi sax amoon nañ ay cadres yi ah, yoo xam ne tey par exemple ay borom xam-xam ay hmm. nekk ay ñoo xam ne ci wàllu xam-xamu hmm. feq hmm. amoon nañ ci niveau yu kawe ba ñu tuddee leen ay xaad yi ñu nekkoon ci tribunaux yi di joxe seen avis bu ñu defee bu ñu bu ñu mosaan a àtte ba pare kon nga gis nañ administration coloniale bi loolu malgré que ñoo mag ñi bokku ñoon jubluwaay bokku ñoon ay xalaat waaye sax jàpp nañ ne ñoom dañ noon xeex li fi eh, mag ñu yoroon te mu doon lislaam ak njàngalem alxuraan. Mm. waaye foofu damay wax ne eh, ñun yàlla daf ñu may eh, mag ñu amoon xel. mag mm. ñu amoon détermination. Mm. toujours dama koy wax borom xam-xam yi man leen dafa am ñaari baat yoo xam ne dafa niroo. ñu koy jaawale te bokkut muy jihaat ak mu xaawama maanaa ñun mag ñi am ci réew mi kenn taalu ci jihaat mhm. ñoom dañ doon def résistance résistance mooy lan mooy yow nit fekk la ci sa dëkk mhm. nga gëm li nga gëm mhm. di dund sa diine di yar sa njaboot yo yoonu siraatal mustaqima di bay di dundee am beneen civilisation boo xam ne dafa jógee feneen ñëw indi te dañuy wax ne civilisation ñaareel buy dem ci bërëb ñett lay àndal dina ànd ak làngam dina ànd ak culture am. Hmm. Hmm. dina ànd ak sëriñam. dëgg la dina ànd parce que sëriñ bi. Hmm. mooy endoctriner nit ñi. ba lim leen bëgg a woo. ak fi mu leen bëgg a jëmee. ci endoctrinement boobu. si la leen di mën a jaar pour loolu mun a am. léegi bu leen endoctriner ba pare nag jël idéologie am roof. jël làngam installé. nit ñooñu bu ñu demee benn jamono. ñoom lañ bëgg yëpp dañ koy am. moo tax ñoom bi loolu amee mag ñi ñu fi fekkoon itam. boo gisee mag ñëpp dañu jógewoon ci réewu taax yi mm-hmm. dem ci réewu kaw mm-hmm. pour sori tubaab bi mm-hmm. objectif bi ñu ci amoon mooy euh, tubaab bi boo ko soree di nga mën a am foo xam ne di nga fa mën a bay dundee sa ñaq waaye di nga mën a yar sa njaboot ci idéologie bi nga xam ne moom nga leen mën a yare waaye itam da leen mën a tënk ci ni nga leen bëgg a tënkee mooy yar leen ci yoonu siraatal mustaqima waaye def ci ñoom alxuraan ba nga xam ne tey beneen sibilisation euh, bu ñëwee. Mhm. la nga def ci ñoom dootu ko mën a génnee loolu dafay sax ci ñoom. Mhm. te fa lilaay alhamdu loolu gis nañ ne Sénégal mhm. réussir nañ ko réussir boo xam ne. tey bu ñuy wax l'exception sénégalais ci àdduna bi daanaka foofu nga koy gis maanaam ñun yàlla daf ñu may mag ñu mag ñoo xam ne dañu xeriñoon lool ci wàllu tarbiya maanaam tubaab bi lim noon bëri moyen moyen ak lim noon am doole lépp fexe nañ ba mag ñi ñoom liñ bëggoon a def ci seen njaboot. Mm-hmm. fexe nañ ba def ko ci. Mm-hmm. te loolu itam réussir nañ ko. ba tax na tey boo gisee Sénégal ni fi daara alxuraan mel. Mm-hmm. damay wax toujours ne xëy na ñiy def wàllu calcul ci wàllu démographie. di wane école yi nombre bi ni mu toll. di wane daara yi nombre yi ni mu toll. man damaa bokk si ñi gëm ba tey ne. daaray alxuraan moo ëpp école tubaab ci biir réew mi ba léegi. man damaa bokk si ñu gëm loolu. Mm-hmm. parce que Saalum gëm a dëkk. Mm-hmm, muy jaamal. Mm-hmm. biir jaamal gëm a dëkk rek. quarante 46 daara mu nga fa. 46 daara mu ngi ci biir dëkk ba. boo jëlee département ba. parce que la fa nekk matul 100 daara. waaye 46 daara yooyu mu ngi ci biir jaamal. tey boo demee boo jëlee dëkk bu mel ni Touba. wax nañu parce que lu mat lu ëpp 1000 et quelques daara mu nga fa. kon nga gis ne mag ñi lañ tabaxoon. suuxat ko jëmbat ko ci xolu jullit yi loolu màgg na jebbi na ba am ay meññeentat ba meññeentat tey moo law fu ne ci àdduna ba tey gis nañu njàngum alxuraan tey jàpp naa ne Sénégal ñeewatul ci kenn tey ci àdduna bi tey boo xoolee sa concours international yi am candidat yi Sénégal di yónnee foofu mm. bu ñu demee di ñu génn ci cinq premiers yi loolu nag bu mënee am mm. dafa am ñu def liggéey boobu mu am fu mu jaar ba yegsi fi mu yegsi kon ñun ñëpp tey jàpp nañu suñu devoir la mm-hmm. mooy loolu ñu sauvegarder ko mm-hmm. ba nga xam ne ah yéene bañ ci amoon ñoom mag ña mm-hmm. bu ñu dajeeg ñoom dañu ne ah liggéey ba ngeen fi bàyyoon kat. Hmm. def naa ne bu doon vingt multiplier nañ ko par deux cent. Hmm. te jàpp naa ne ñun ñëpp ci loolu rôle boobu la nekk. jërëjëf euh, pour sauvegarde sàmm sàmm ndono yi. Hmm. bokk na ci sababu émission bi nga xam ne. <laughs> waaw pour voilà sàmm ndono yi alxuraan yi ndono daara liggéey yooyu. su ma la déggee wax nga tey c'est-à-dire daara yu mag ñëpp kenn ku nekk fexe nga ba amoon ba amoon daara c'est-à-dire mën nga xool. mag ñi nekkoon Fuuta mën nga jël Waalo mën nga jël Gànjool mën nga jël Njàmbur mën nga jël Saalum fépp foo xam ne nekk mag nekkoon na fa rek fexe nga ba am nga tool boo xam ne euh, nit ñi mën nañ fa di bay maanaam dongo yi mën nañ di bay di dundee mën nga am daara joo xam ne mën nañ di jàng alxuraan mais li gën euh, yéeme ci ñoom mooy malgré moyens yi ñu am lu mu néew néew booba euh, pour nit sax yombul fexe nañ ba matt mi daan nañ ko taal pour pour jëfandikoo pour pour jàng parce que seen seen priorité la ñoom mooy ñu fexe ba nit ki alxuraan ñi mu war a jàng bu dee da ko war a jàng jël te amul courant ca jamono wooyu ñu jëfandikoo seen ay moyens jëfandikoo matt bu ñu waree jàng marax mooy njàngum timis mi kazalika naka noonu fexe ba njàng mi am ci seen moyen xataa làkk bi sax fexe nañ ba wolof cest yi doon génnee ci ci alxuraan yi baat bu nekk niñ bëgg nga nga jàngee ko ci seen ci seen làkk ci ci làkk wolof laa bëgg a wax su loolu continué woon tey def naan lii coow tey naan waroon nañoo fexe ba suñuy doom ñu jàngal lañ ci suñu làng bu continué woon kon def naan loolu dana ko doon jàngal xale bi mhm. daanañu fekk di la jàngal ay ndimal ndigal ni nga ko tuddee euh, ndigal ting ah, euh, voilà yooyu ah, noonu ah. voilà yooyu ñu la doon jàngal xale bi day pare xam ko ci wolof nim nim nga xam ne noonu lañ ko koy jàngalee c'est-à-dire ci làkkam lañ koy jàngal taxa ji mu jàngul lii alxuraan ci njàngin mu seet bon fexe itam ci mbir mi dañ ko bind mhm. bind bi pour ñu am ko ci seen ay moyens ci garab ga lañ daan dem yett aliwa dem ci xat ba yett xalima daa bi ñu soos ko lépp nekk lu naturel ci seen environnement bi ñu tollool jàngal ci xale mu pare loolu nekk beneen formation boo xam ne daanañ ko liggéey ci ci yooyu hmm. maam kon mag ñi jàmbaar lañu jàmbaar lañu xam nga xam nga toog waaw dañuy wax ne doomu aadama hmm. génie bi yàlla def ci moom euh, yàlla daf lay dimbaleeg dajale dajale la ak koo xam ne hmm. mun na yee mm. génie bi ne ci yow. Euh, exemple bi ñu ciy jox rek. Mm. boo xoolee Covid bi ñu dund. Mm. maanaam li ci nit ñi génnee ci wàllu théorie ci wàllu xalaat. amaan na sax bu bu Covid bi amutoon. Mm-hmm. lu mel noonu du am. kon nit la yàlla mooñaalee loolu. maanaam boo gisee mag ñi. Mm-hmm. Euh, technique. ak détermination. ak am vision. bi nekkoon ci ñoom. boo amutoon résultat bi ñu am bi ñu bi ñu gis tey. duñ ko mën a am mukk euh, dama la wax sànq man le mag ni mag boo ci jël. Mhm. fa mu ganee àdduna. Mhm. bokkut ak fa mu génnee àdduna. loolu am na lu ñu bëgg a wane am na lu ñu bëgg a wax. mooy ne ñoom ci seen bopp mhm. euh, gëm-gëm bi nekkoon ci ñoom. ak détermination bi nekkoon ci ñoom. ak bëgg liggéeyal yàlla. bëgg koo jaarale ci yar ak jàngale. moo leen doon jaral ñu dem ci àll boo xam ne àllu kerte ndeng la dara nekk fa amul ndox mm. amul courant mm. amul dara nga ñëw fàkk fas fa yéene jaamu fa yàlla teg fa say bagaas gor fa wut mm. fa ay tool bënn fa ay teen mm-hmm. ah fa ay néegu ñax mm-hmm. te dara dara nekku fa nga dem ba dëkk boobu mujj doon waaw waaw dem ba dem ba dëkk <laughs> boobu mujj nekk leer xam nga sama benn xarit dañu waxtaan benn chercheur la docteur Jim Ousmane Dramé bu nekk IFAN mu ne dëkk boo dégg naan kër rek mm. ab sëriñ ko sanc wala dëkk boo dégg ñu tuddee turu diine rek nee na ab sëriñ ko sanc mm. te tey boo xoolee Sénégal tey mm. kon da nga naan xëy na administration bi fi nekk te colonialiste yi indi ko fi maanaam ñoom minorité lañu par rapport ak li liggéey li mag ñi liggéey ci réew mi waaye xoolal mag ñi maanaam maanaam doylu gi ñu am ba mënoon a wane ne li fi nekk yëpp ñoom la mm. ah, maanaam li fi nekk yëpp ñoom la mm. maanaam ñoom ñoo sanc dëkk yi mm. ñoo yar ñoo ñoo yar taalibe yi ñoo jàngal taalibe yi ñoom la nit ñi di déglu buñ leen waxee ñu def buñ leen teree ñu bàyyi waaye ànd ak loolu lépp li jamono indi te ñi jàpp na ñoo ko war a yore ñu bàyyi leen ko te ñoom toog ci seen ay daara xam nga loolu beneen jàngat la boo xam ne jàngat jàngat bu am solo la te xam nga daara dama koy wax toujours ma ne daara dafa sax ci xolu Sénégalais yi mm-hmm. da ngay gis koo xam ne mosul dem daara mm-hmm. mosul am occasion jaar daara sax mm-hmm. waaye bu gisee taalibe bi rek doon xale day yëg ne ki mu gis njabootam la parce que dafa nekk dafa nekk xale boo xam ne mu ngi ci yoon boo xam ne yoon la boo xam ne bu ci jaaree ba yegg fa mu jëm day nekk exemple ci société bi mu ne te yooyu mun nañ ci joxe exemple yu bari parce que formation bi daara di def ci nit dama koy wax sama benn xarit ma ne boo xoolee tey école yu moderne yi. boo ñëwee dañ lay jàngal management. dañ lay jàngal technique de communication. dañ lay jàngal session. dañ lay jàngal yooyu yëpp. taalib bi jamono bi mu ne ci daara ji di jàng. loolu lépp ñu ngi koy installé ci moom. boo xëyee jàng ba midi. war a lekk. amul fenn foo war a dem jënd lekk. dañ lay jox sa pot na la demal wuti loo lekk. xel mi ngay am. ba mën a xalaat ba fi ngay war a mën a jaar ba am looy lekk. loolu. loolu loolu génie la bu génie la bu nit yàlla def ci nit ki nga xam ne xale bi bu génne xam na kër yi mu war a jaar mm. pour am lekk mm. bu paree bu heure bi jotee mu ñibbisi waat ci daaraam mm. bu yéree mi tilimee moom moo koy fóotal boppam fan lay lijjantee saabu bi mu koy saabu bi mu koy fóotee bu ko fóotee pare ni muy defaree ay yéreem ci biir daara ji organisation ba fay nekk léegi xale boobu bu bu maanaam bu maggee ci environnement boobu mm-hmm. ba génn dem fu mu mën a dem ci àdduna mm-hmm. benn dafay mën a nekk mm-hmm. ñaar dafay mën a yore boppam ñett dafay miin métit mm-hmm. euh, ñeent mm-hmm. dafay am tolérance euh, juróom dafay mën a xajo ak fu mu mën a nekk mm-hmm. te loolu nag damay wax ni li ngay li ngay jàng ci université yi ñeneen la yaa ngi jàng marketing agressif wala yaa ngi ci université yaa ngi jàng jàng économie mhm. parce que soo demee Sandaga léegi mhm. fekk koo ko ci benn <laughs> la bëggee jaay léegi <laughs> <laughs> moom def la ko ah. la ko jàngee voilà ah, parce dañ ko jàngal dañ ko jàngal théorie théorie waaw voilà moom ah? ok mais defal ko formation ko jàngal théorie muy pratiquer muy pratiquer ci maanaam yëpp jaara koy def ci yow xam ne tey hmm. euh, boo génnee ci ci environnement boobu. Mm-hmm. yow foo mën a dem rek. Mm-hmm. ak koo fa mën a fekk rek. Mm-hmm. yow ci champion yi maanaam ci champion yi ngay bokk. waaw ndax dafa li war a tardeel nit. loolu dañ ko raxas ci yow. génnee ko ci yow. installé fa loo xam ne lépp luy souffrance. di ko mën a dékku. lépp luy métit di ko mën a dékku. waaye lépp loo xam ne te muñ la. da ngay xam noo koy defee mm-hmm. waaye boo dëkkee ay nit itam ak yi war a dox ci diggante nit ñi nga dëkkal mm-hmm. danga koy xam mm-hmm. waaye alal ji la yàlla jox nga xam ne yaa ko liggéey yàlla jox la ko ña ca am àq tey it foofu problème bu rëy la boo gisee tey euh, benn borom xam-xam dafay wax ne boo gisee tey crise bi gën a métti ci àdduna euh, borom xam-xam yi xam nañ ko waaye nanguñ ko wax ñu ne crise boobu lan la mu ne ñu ne yàlla mi séddale kenn wartu ñàkk waaye séddale boobu nag dafa jaar ci ay loxo mm-hmm. loxo yooyu nag mm-hmm. ñi ñu waroon a jox mm-hmm. ñoom lañ joxut moo tax crise boobu am waaye bu fekkoon ne li yàlla séddale jaar na fi mu war a jaar ñi ko war a joxe joxe ko parce que boo gisee ba ci asaka sax dañuy wax ne yàlla moo ko santaane waaye moo tudd ñi ñu ko war a jox yaa dégg tey boo demee ci dëkk yu mel dëkk yu organisé fu mel ni Malaisie maanaam tey ñoom seen asaka dañ koy organiser ci façon boo xam ne yow jullit bi jël asaka euh, ren déwén da nga da nga war a danga da nga war a gëm ne ci ñi ko war a joxe déwén nga bokk nga xam ne dinañ la waajal balaañ la koy jox ñu defal formation ñu xool yow lan mooy say projet boo ko jëlee lan nga ci war a def nooy def ba doo ko yàq léegi saa suñ la ko joxee moom lay wax toujours suñu suñu suñu système financier fi ne man leen war ngeen jàng ci lislaam parce que bu ngeen jàngoon ci lislaam ni mu tegee système finance buñ ko jàngoon ci lislaam am na yu bari ñu ngi koy gis comme ay erreur mm-hmm. yàlla mën na leen ci dimbale mm-hmm. xam nga tey ki jaar ci daara mm-hmm. jógee ci daara ji ñëw dakaar ñu ci bari ci borom milliardaires yi ngay dégg ci réew ku ci nekk tey bu la waxoon fi mu commencé yaa ngi dégg nga gis tey boo demee département économie am na ñoo xam ne nekk ay maîtrisards génn ah ñu ne ñii ñooy économistes yi ñu jël ay financement jox leen benn at ñaari at ñetti at seen économie daanu parce que économie boo ko tegee lu mu attanut. Mm-hmm. ah ndongo daara baa ngi wax mel économie si de. waaw <laughs> mais quand même li nga wax sax lu xel dégg la boo xoolee wax toujours ne boo xoolee da xale bu jógee boo xam ne dafa jógee daara ci jàng alxuraan mokkal. Mm-hmm. Euh, bon ñu bari xam naa dara ma ci wax ne toujours loolu loolu rek métier la léegi mais léegi da ngay gis koo xam ne jógee ne daara ji jàng alxuraan moo ko mi ñu gis benn cinq mille francs la mm. la ñëw Dakar mm. indi jënd benn kafteeru kafeem mm-hmm. benn kafteeram bu segg kafeem loolu la commencé boo ko laajoon léegi foo commencé dinaan la mm. sept mille cinq cent la commencé tey mi ngi ci ay ay ay millions cest kon formation bi nga doon wax sànq ci daara yi euh, waaw dafa am solo gis nga dafa sama benn xarit euh, ndeysaan enam la génnee cadre A la benn jour ñuy toog di waxtaan ma a ko yéen dañ leen di jàngal mm-hmm. former leen mm-hmm. mais duñ leen waajal mm-hmm. xam nga tey nit boo ko waajalut maanaam li ko mën a détourner dafa bari li ko mën a orienter dafa bari parce que def nañ fa xam-xam ba mais waajaluñ ko fi mu jëm nan la fay demee ak ñan la fa war a fekk ak bu leen fa fekk ban comportement la war a am xam nga tey cadre boobu tey bu génnee ENAM rek banque bi da koy këf parce que xam na ne cadre la am na avenir. Mm. te avenir boobu mu am banque bi gis na ci intérêt. Mm. ñu ne ko yow cadre A nga tey par exemple exemple. Mm. xam nañ ne lu mu dee dee weeru nekk mën nga am benn cinq cent mille. ñu ne ñu ne ko xam nañ ne amagoo kër. amagoo oto. amagoo nangam amagoo nangam te loolu lépp banque bi pare na pour jox la ko. yow maanaam prestige bi ak privilège rek ngay xool. mais doo xool ndax li nga yor attan li ñu la jox attan na ko. nga jël oto. Mm-hmm. jël kër. Mm-hmm. jël leneen jël leneen te mm. lépp ci salaire bi nga yaakaar pour war ko cee fay mm. léegi boo demee ba salaire bi mënutut a fay loolu mm. banque moom xamul ay intérêt dong la xam exemple bu demee ba mu yàgg heure yi nga doon fay mënatoo fay banque bi ne ah respecté too sa rendez-vous de te yaa wax ne da nga fay bu rendez bi jotee léegi nag taalibe bi moom fi mu wutee kooku mooy dafa jàpp na dund dund bi ay étape la am na foo xam ne boo fa tolloo boo amee juróom boo amee fukk waroo lekk fukk yi mais dafa am noo dafa am foo jëm foo xam ne da nga war a waajal sa bopp ak na nga fay demee moo tax ñi nga xam ne ñoom la daara ji bi ñu duggee ci marché économie bi lañ fa def ñi ko jàng ci université yi gën a mag ci àdduna bi biñ ñëwee mënuñoo def loolu parce que ñaari formation yi ñoo bokk parce que këla dana xeex ak sa bakkan waaye itam dana la bàyyiloo xel àdduna hmm. waaye dana la bàyyiloo xel ne alal bi la yàlla joxit dafa am ñu ci am àq hmm. mooy asaka ba nga cey génn te dañuy wax ne asaka hmm. dafay dundal alal am yu am na yu bëri yu xew ci alal yi ñàkk a génn asaka la léegi nag waaw sadaqa tutahhiruhum bihaa ne ko alxuraan ah, ah, ah. kon mm. ci dañ ci dañ dañ ci daaw ñu ko caaxaan daaw ñu ko fay da nga daan xool ñun ñi nga xam ne ñoo dëkkoon ci àll bi bu ñu nekkaan ci daara yi di bay mm. bu ñu bayee ba bay bi jeex mm. dugub ba ca àll ba lañ koy génne asaka mm-hmm. gerte ga fañ koy nattee fa lañ koy génne asaka parce que bëgg benn àq mm. dugg ci seen biir alal wala ci seen biir moomeel mm. te àq boobu waruñ ko joxuñ ko ki ñu ko war a jox mm. dak jërëjëf imam yaa ngi doon wax ci point bu am solo cest suñu déggee daar yi am na benn formation bu bu am solo maanaam tëgg nit defar ko ba mu nekk nit koo xam ne économiquement dana mën a yor boppam voilà spirituellement d'abord dana mën a maanaam jaamu yàlla am ruuxam dana ko defar mooy tax mu mën a jël azakaam joxe lépp lu suñu borom defar maanaam taqwa ngi ragal yàlla gi liggéey nañ ko ci moom beneen bi euh, voilà defar nañ ko tàggat nañ ko mu génn daal beneen aspect bi yoo xam ne aspect bu am solo la mooy njàngam alxuraan bi yaa ngi ko doon tudd sànq tey concours yi am ci àdduna bi yëpp maanaam c'est-à-dire euh, dafa am benn góor borom xam-xam la rahmatullahi alayhi Baye Lamine Diop wax ni daara la gën a néew ci la fa taalibe di gën a jëlee mooy xam-xam bi waaw mu ne mooy ci li gën a néew la mu fay jëlee mooy xam-xam bi kon c'est loolu benn aspect la beneen aspect bi surtout mooy li nga xam ne mooy li ñu a soxla mooy njàngum fii ñu toll ci Sénégal bu dee euh, seetlu nañu loo xam ne kenn mënatu koo nëbbu mooy fekk koo xam ne ajam la maanaam koo xam ne mu nga dëkk ca euh, àllu Saalum ba nga fekk ko fa euh, waxam seetlu nga defar làmmiñam def ci alxuraan mu di ko jàng ci tajwid boo xam ne <laughs> voilà du du du boo ko yóbboon tey ca jamono bu fekkante woon ak jamono yonante bi njàng alxuraan lu nit di deen dindi loolu tamit beneen effort la boo xam ne mag ñi liggéey ko ci ci dëkk bi aussi loolu te fi jamono toll euh, ku ne xam na ko tatawur am na gaa maanaam évolution am na ci euh, fa mag ñi bàyyi woon daara bu màgg ba yegg àgg fenn waaye lépp rek seen cëslaay li ñoom ñoo ko ñoo ko liggéey voilà euh, li nga wax dëgg la hmm. am na solo xam njàngum alxuraan hmm. Euh, ndeysaan daaw ci daaw jéeg ci weeru koor yi euh, dafa am benn ndogu boo xam ne Serigne Mbuub moo ñu ko invité woon euh, Touba ñun waa AIS ñu participé woon ci daje fa waa Kokki ndeysaan moom benn jàngalekat ci jàngalekat yi nekk ci daaray Kokki ci biir waxtaan bi mu ne man de yor naa ci sama loxo façon xale bu ne ba xale yi ni ñuy mokkalee daan naa mën naa wax sax parce que yéemu ma waaye li may gis jamono bii en tant que jàngalekatu alxuraan yéem na ma xaw ma nag lan la nee gis xale boo xam ne ñeenti at ñetti at mokkal ci alxuraan mokkalin boo xam ne yow mi koy jàngal daawu baax a gis xale di mokkale mokkale alxuraan ci condition yooyu wala ci anam yooyu loolu nekk nekk kéemtaanu suñu borom euh, te kéemtaan boobu ki koy wax mm-hmm. maanaam moom dafa nekk ci biir environnement bi dafa nekk ci biir saaxa bi mm-hmm. maanaam dem ba def constat boobu mm-hmm. dem ba def maanaam ba def seetlu boobu waaye xam nga loolu euh, du lu naqaree jàngat lu neex a jàngal la parce que euh, dafa am benn góor dafa toog benn bés doom ji na ko papa yow de maa la gën a dégg arab mu ne ko ah parce que doomu arab nga man doomu ajam laa waaw parce que yow environnement bi nga juddoo. Mm-hmm. da nga judd rek dégg ñuy jàng alxuraan. Mm-hmm. da judd rek dégg ñuy làkk arab mm-hmm. kon yow yaa ma ëpp sens. man mi nga xam ne environnement ba mu juddoo. xëy na amoon sens. sens bi nga am yow. dégg nga bi. ndax da ngay dem ci kër yu mag yi. ñun suñu kër yi. am na si ñoo xam ne alphabet sax jànguñu ko. ndax da judd yeew da ngaa judd rek xàmmee. di toog ci duude ci ñuy jàng alxuraan. wala da ngaa judd rek gis mbaar bi nit ñi ku xëy ñëw jàng. yow it nga doon xale boo ñëwee toog léegi toog ba ngay toog donte la data matagoo dal jàng sax am na loo mokkal loo xam ne am na ñoo xam ne def nañ fi ay weer mokkuluñ ko te yow yaa nga ci biir kër ga <laughs> xam loolu nekk loo xam ne du kéemtaane la beneen bi ci itam mooy njàngalem alxuraan euh, sénégalais yi yàlla def leen ci moo sax may kéemtaan xam nga man sama maam mm. El euh, Hadj Abdoulaye Cissé Serigne mm. dafa bind benn téere mm. boo xam ne runge yi am ci alxuraan yëpp. Mm-hmm. daf ko ci def. Mm-hmm. ndax booba li ñuy tuddee maxaarijul xuruuf. Mm-hmm. ak tajwid melut ni mel. te alxuraan dafa bëri. ay yu dafa bëri yu niiroo. te booba daan nga gis ko mokkal alxuraan ba ba tër tëri. di def runge li ñuy tuddee runge maanaam runge nga gis baat yoo xam ne dañoo niroo te bokkuñ fuñ ne léegi nag bu fekkee yow manoo manoo ko settante booy tëri mën ngaa juum lii nag moom mu bindoon téere boobu pour mm. baaxee ko ay ay ay ay ay ay taalibeem mm. nga xam ne téere boobu tey ay tënk ci ne yoo xam ne tey boo ko mokkalee mm. runge yooyu di ma runga yooyu am ci alxuraan bu boobaa yàlla mën na la caa musal waaye boobu xam nga maxaarijul xuruf nga xam ne tey xale yi tey ci wàllu tajwid tey nga gis xale boo xam ne tey dañ naan am nit ku ñuul la sénégalais la am concours bu am Arabie Saoudite ñu dem natt ko ci ilmul xiraa mu mel ci noo xam ne naar bi nga xam ne dafa nàmp arab mm-hmm. melu ko ci loolu kéemtaanu suñu kéemtaanu suñu borom la ah? waaye nag kéemtaan boo gis mm-hmm. euh, nit moo koy sabablu nit moo koy sàkku mm-hmm. te damay wax ne njàngum alxuraan dafa jóge ci ay étapes yu bari yu sori te étapes yooyu ba léegi mu fi toujours ci samay waxtaan damay wax ne dafa am ñaari daara yu fi ne dafa lu ñuy tuddee daara moderne am lu ñuy tuddee daara traditionnel mhm. am na ñoo xam ne ba léegi ñu ngi ci traditionnel ñu maa ngi ci doon ñëw sax moom laa ñu ci traditionnel xam nga yaa ngi doon laal point bu am solo mhm. euh, c'est-à-dire ci ci ci euh, runk yooyu mag ñi doon def mhm. c'est-à-dire euh, léeg-léeg tiitaange dañ xaw am boo dee xool tey daara alxuraan yi fii wala daara yu mag ñi sax tey yi njëkkoon a taxawal yu ci bari tey <laughs> voilà daara ji tuxu na dem na ci beneen beneen xaal cest à boo di tudd jaamal tey ku xam jaamal ni meloon ci ci alxuraan mm, mm, mm, waaw di dëkk boo xam ne ku daa daa daan tudd tey fu mel ni euh, dëkk ba daan jàngale miraas ci Saalum mbos mbos waaw bu nga xool tey daara yooyu nga dem tey fu mel ni Busra dugg Fuuta daara yi fa nekkoon dugg Ndar dugg kog yi tey bon da xaw tiitaange dana xaw am parce que originalité bi amoon ci daara yi mi ngi fay mi ngi fay jóg ndànk ndànk waaye tatawur mi ngi am maanaam lu bees mi ngi am bon am na ñoo xam ne ña ngi cosaan la ba léegi ñoom ña taxaan aussi il faut ñu xam ne loolu mu ngi ci Sénégal ba léegi am na ñoo xam ne ba léegi nii may wax ak yow ñu ngi taxaan di mm-hmm. taal jàng di jàng ñu ngi yor àlliwa di bind ñu ngi beqi di bind alxuraan bind mu set ba léegi mm-hmm. voilà yooyu yëpp mi ngi am mm-hmm. léegi nag ci laa bëggoon tey ñu ñëw tey ci naka nga gisee daara yi njëlbeenu ni ñu njëlbeenoo woon. Mm-hmm. ak fi ñu toll tey. Mm-hmm. cest à gis nga. Euh, moderne changement bi voilà naka nga gisee. Euh, ni nga ko waxee dëgg la. Mm. Euh, am na daara yoo xam ne ba léegi fañ nekkoon ca démb ba léegi ñu nga fa. Mm. ma jox la ci benn exemple. Mm. mooy daaray jaamal. maanaam na ko boromam sànci woon. 1910. ba 2021. amul virgule bu mu ci soppeeku. est-ce que. maanaam jaamal mën nga faa duggee niveau primaire. Ah. ba niveau doctorat. est-ce que. maanaam moom bi muy sañ ci dëkkam boobu. Hmm. maanaam wax nañ sax njàngum alxuraan. Hmm. Euh, benn partie bu néew la ci. Hmm. biir daara ji parce que ñaareel ña fay ñëw ñëpp. ñu ci bari bu fekkee dëkkoo ci dëkk boole cosaanoo fa. Ah. ñaareel da ngay jàng alxuraan ba pare ah, door a ñëw. boo ñëwee nag parce que sëriñ jaamal xëy na sax du solo si waxtaan bi waaye mag la bu ñuy joxe exemple parce que mag ñi fi nekk ñëpp moo leen féete woon mag moom magoon Seydi Hadji mm. moo moom magoon Serigne Touba mm. moo magoon maam Abdoulaye Niass mm. te moom dafa génnoon dem Mauritanie jàngi mm-hmm. li taxoon mu génn jàngi dafa amoon xam-xam yoo xam ne mm-hmm. naaru gànnaar yi dañ daan ñëw ndar mm-hmm. di ko fa wane waaye daawuñ ko fa toog di ko fa nangoo jàngale bokk na ci xam-xam yooyu li ñuy tuddee xam-xam elmu nujum elmu nujum ak xam-xamu usul Euh, gii ju wutoon ci réew mi ba ñu bëri daaw ñu fi jàngale moom bokk na ci mag ñi njëkk génn dem tey boo ñëwee dëkk bu mel ni jaamal pour exemple rek euh, famille bu nekk dañ dañoo jël benn matière jox la ne ñii ñoo jàngale luxa famille boobu ba de ba léegi boo demee lépp loo xam ne luxa lu dalee daaliya ah ba fa luxa fañ xam ci téere luxa yi yem yëf yëf la yem ay maqaamaatul xariri ak ya ci aju yëpp am famille boo xam ne grammaire rek la ñu jàngale mm. ba Alfiya ibnu Malik mm. maanaam tey loolu tey am na mag ñoo xam ne ci seen ay kër dañ ko sauvegarder parce que loolu patrimoine la boo xam ne maanaam leneen lu mën a ñëwit danañ ko accepter waaye nag ci njaboot gi mm. danañ tànn loo xam ne danañ danañ ci tànn ñoo xam ne ñoom patrimoine boobu dañ koy garder mm-hmm. parce que foofu it barke ba. gëm nañ ne fa la gën a féetee. foofu moom dañ daan ñëw incha allah. Ah, waaw waaw waaw barke ba fa la fa la fa la fa la fa la ba tax na da nga fay gis ay xale yoo xam ne boo fa demee mm. maanaam ci wàllu aruut. Mm. ci wàllu balaaxa. Mm. ci wàllu ilmul kalaam. ci wàllu badia maani xeetu xam-xam yooyu nga xam ne tey raar na sax ci réew mi ñu dégg ay nit ñu koy wax tey boo demee foofu ay xale yu ndaw ñoo la koy jàngal parce que yooyu mooy patrimoine yi nga xam ne ñoom la fi mag ñi bàyyi woon am na loo xam ne nag jamono ko indi mm. dañ koy jëli comme xam-xam mm. intégré ko mm. li nga xam ne moo fi nekkoon te mag ñi bàyyi ko fi te xam-xam boobu nag mooy xam-xam bi nga xam ne mooy xam-xamu cosaan bi waaw te xam-xamu cosaan ci diine xëy na sax du ñu wax ne xam-xam dafa am dafa am bu bees ak bu màgget ak bu kii waaye ci waxin maanaam ci tey boo demee li ñuy tuddee xayrawaan yi maanaam ay daara la woon mais dafa dem mu mujj ko université te itam mag ñi tey Touba mm. ay daaraa fi nekkoon mm. te yàlla def na xalifa bi fi nekk tey mm. dem na ba gis ne Touba war na am université islamique loolu mooy daara yi nga xam ne ñoo fa nekkoon ak majaalis yi nga xam ne ñoo fa nekkoon moom la ñuy jël ñu formaliser ko def ko mu nekk université parce que université boo gis ci àdduna bi moo xam al azhar la boo ci mën a dégg rek daara la woon dañu dem ba mu yàgg ñu jël ko def ko mu nekk niveau université tey tabat liggéey yooyu mag ñi ñu ci liggéey liggéey yu am solo daara yi itam noonu la demee mm-hmm. tey am na ci daar yoo xam ne boo fa demee tey ba léegi mm-hmm. ñu ngi ci njàngum démb mm-hmm. boo ne maxaari jul xuruf xamuñu ko boo ne tajwid xamuñu ko boo ne boo ne elmul xiraa xamuñu ko donc xamuñu ñoom nañ ko doon jàngee démb rek wala daa lii na sax ñu ne wala laa lii na oh. ah loolu xëy na njàngin la boo xam ne. yooyu yooyu yooyu yooyu waaw waaw xam nga. xam nga xam nga <laughs> ah, xam nga. yooyu <laughs> ah. xam nga. Ah, yooyu yëpp. àdduna <laughs> lépp rek. étape la étape la waaw étape ndax li tax ma ne lépp étape la. am na koo xam ne lim xam. Hmm. ak lañ def ci moom. Hmm. yenn saa yi sax dindi ba dana xaw a jafe. parce que day jàpp ne mooy mooy mooy mooy dal suñu mbokk daara yi yenn saa yi. ak état ci xëccoo yi faral di am ci seen diggante ci baatu modernisation mm-hmm. ci baatu nangam ak nangam maanaam ci concept yooyu des fois mën na poser problème mm-hmm. ba sax nit ki dina ko ragal te fekk na sax xëy na la muy ragal moo gën ci moom waaye nag leerut ci boppam ba ba mu mën a xam ne mm-hmm. ndeke kat fi ñu ko fi ñu koy orienté moo gën fi mu ne. <laughs> waaye loolu lépp nag communication ak waxtaan rek lay am. lay lay doon waaw ah, waaw ah, jërëjëf Imaam ñu ngi may wax ne ma waxtu bi jeex na. jërëjëf kontaan nañu bu baax baax dañuy ñëwaat cest à li ñu soxla woon tey ci émission bi génn na mooy mu am première partie. partie bi li ñu bëggoon mooy ñu feeñal mm-hmm. euh, njàngum alxuraan li mu sancoo sampeyoo ci Sénégal. Mm-hmm. loolu rek bëggoon nga fi feeñ te vraiment feeñ na ni mu sampoo wane taarix bi ñëw na bu baax baax baax euh, voilà euh, funoon yi daan yi daan jàngale ci daara yi aussi ñëw na mm-hmm. aspect pédagogique bi aussi tudd nga ko formation réaction yi fa am yëpp jërëjëf loolu lañ soxla woon ci émission bi ndax ay étape la yu bokkul dinañ ñëwaat ak yeneen ci acteur yi nga xam ne ñoo nekk ci terrain bi nga xam ne ay association lañu yor daara yi nga xam ne journée bi a ñëw assemblée ñu ngi koy waajal ak yeneen association yëpp ñu ngi koy waajal dinañ nga xam ne aussi ñoom ñooy état ñoo yor daara yi fi ne nii ci seen ci seen loxo la lépp lu dëkk itam dañ koy tënk danañ leen invité ñu waxtaan ci tolluwaay ñu xam ne daara alxuraan aussi dafa nekk loo xam ne ci société Sénégal bi ñu nekk nii bu ñu waxee wàllu wàllu wàllu ndigalu suñu borom société bi moo soxla daara maanaam mu nekk loo xam ne mënatu fee ñàkk fow ñu waxtaan ci fow ñu xool nu ñu ko jubbantee saxal ko li may tëjee rek waaw mën nga tëjaale mooy ne daara hmm. am na problème hmm. euh, te problème yi daara am hmm. man gis naa ne euh, solution yi ci ñett ba ñeent la nekk problème bi daara am mooy daara nam nekkee woon démb mënul continuer di nekk noonu. di nekk léegi nag kan moo koy génnee fi mu ne. Mm-hmm. ak kan moo koy dimbale. Mm-hmm. ak fan la war a jëm. Mm-hmm. loolu cadre boobu ñi ko siq man jàpp naa ne ñeenti nit la. mooy xale bi si jëmm boppam. moom dañu soxla xam-xam. def ko ci moom def ko ci parent bi nga xam ne mooy wëy juróom. kooku itam war na ko tànnal. ci responsabilité laa nekk. parent bi nga xam ne moo jur doomam. war na tànnal doomam. jàng bu gën. ci bi mu war a def ci doomam. benn. Mm-hmm. ñaar mooy cadre bi. Mm-hmm. lu ñu war a bàyyi xel la. Mm-hmm. mooy environnement bi. environnement boobu nag responsabilité kan la. xëy na mën nañu wax parent bi la. waaye mën nañu wax ne état. parce que état dafa am ñaari doom. ñaari doom yooyu. mu ne kenn ki moom adopté naa ko jël naa ko uuf naa ko maa ngi koy defal li mu bëgg lépp. waaye keneen ki nag. xëy na li ma yore. bokkut ak moom bi mu yore. Mm. waaye bu fekkee nangu naa ñëw ci bi ma bëgg mu mu ne. Mm. bu ñëwee danaa ko uuf comme ni ma uufee la. Mm. waaye ñu xam ne. li ñu tuddee liberté ak démocratie. moo ñu may ku nekk tànn. kon ki tànn beneen bi itam. doon doomu réew mi. di fay impôt di fay ay taxes. moom itam war nañ koo fekk ci secteur ba mu nekk. organiser ko jàppale ko ci. Euh, ñetteel bi nag mooy ONG yi nga xam ne xëy na ñoo ne ci diggante bi nga xam ne li ëpp si ñoom xëy na daara bi condition bi baax na mm. euh, wala condition bi baaxul mm. ñoom côté boobu la ñuy gën a xeex mm. waaye njàngin bi baax na wala baaxul loolu def naa ne sëriñ bi ak ñun jullit ñi loolu moo ñu gën a yitteel ci xale bi kon ñu ngi ñaan yàlla kër gi. Mm-hmm. Euh, ni mu ubbee. Mm-hmm. yàlla suñu borom def fi tawféex. daf fi naataange. ndax yëg nañ ne kër gi këru alxuraan la. yëg nañ ne dëgg dëgg bi ñu fi duggee. Mm-hmm. Euh, yëg nañ ne suñu kër la. kon ñi am yéene bu mel nii. ak xalaat bu mel nii pour liggéeyal lislaam waaye liggéeyal réew mi. ñu ngi ñaan yàlla suñu borom. Euh, may leen ci seen xalaat boobu kaw seen jot ci ndigalu sëñ maam Cheikh Mbacke mi jiite AIS ak jine ci kuréel gi yëpp ñu ngi leen di sant di gërëm di wax asalaamaaleykum wa jërëjëf imaam jërëjëf jërëjëf Cissé ñu ngi lay sant bu baax a baax vraiment yal na yàlla barkeel xam-xam bi te yàlla itam dëgëral kuréel gi di AIS ñu ngi leen di nuy bu baax baax di yóbbante nuyoo ci kilifa yëpp mbokk yi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax tey ñu ñëwoon ak yéen ci benn première numéro bokk mu nekkoon ci seen émission bii ji mbaarum daara ji première bi doon waxtaanee tey dëgg-dëgg daara alxuraan njëlbeen gi mooy mag ñi ñoo ko fi indi ñu bëggoon xam historique bi ak niñ ko fi campee incha allah ñu ngi leen di ziar bu baax a baax wasalaamullahi aleykum wa rahmatuhu wa barakatuhu